jërëjëf jërë ngeen jëfati mbokk yi ci seen àndina ak le buzz du web la chaîne des leaders TV ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di kontaane it bu baax a baax ci àndi ku gi di am mbégte beneen yoon beneen jotaay ñu ci ànd ak yéen baaxoon nañu di leen toppal lépp luy actualité combat bi amateur yëpp doon xaar suñu borom def mu yegg muy combat bi doon dox ci diggante Balla Gaye 2 ak Tapha Tine sama yaayu bopp nag Mama Selbé ndoom dama fi jógee bërki démb moom mu xamaloon ma ni daal li mu gëm wala li mu gis wala li mu yaakaar à pour cent moo dina kii di Balla dafay am ndam tey nag di dimanche 21 juillet mu woo ma 21 mu woo ma 10 heures wala 11 heures ni ma congaan li ma gis mooy Balla gay 2 day jël ndam li man nag vraiment amoon naa tiitaange ngir fas yéene càmbar loolu leeral ko mais aussi taxawaay bi nga xamee ne amoon na ko ci combat bi loolu waral ma dellu si fi fas yéene am ak moom jotaay Maman Selbé Ndom maa ngi amati mbégte beneen yoon beneen jotaay di ci ànd ak yéen xanaa rek pour commencer dama lay gërëmaat bu baax a baax vraiment ci disponibilité bi. Mm-hmm. Mm-hmm.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 ki baax ci man ba tax jooyu ma papa jooyu ma nijaay muy Seydi Mouhamed Moustapha si di ko ñaanal gudd fan ak wér di la ziar. bu la neexoon doo fi ñëw. sama yaay bopp ne da ngaa jékki-jékki woo ma sama hmm. yaay bopp damay ñëw ma ne la yoon waa ngeen. absolument kër gi moom seen bës. absolument <laughs> sama sama seen bës la. c'est clair ah, sant yàlla julli ci Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa ma ko bu baax sama xarit bi ma àndal alqaasim moo may jàppale bu baax a baax vraiment ci déplacement bi. sama hmm. nitu bopp la sa soppe la. Hmm. nit ku jàmbaar la di yëngu ci li nga xam ne mooy transport moto yu demee noonu. alqaasim la tudd. alqaasim day borom baax la ndax dégg naa dem muy làkk arab yu neex. dëgg la yow xam nga yow yow doo ànd ak ku bon. Ah? absolument yow macha allah. <laughs> Euh, euh. wallaay ci ibadulaay saalihiin yi nga bokk. moo tax ma fonk la bëgg la man dama bëgg koo xam ne xool ba alxuraan moo ci nekk. macha allah looloo tax ma fonk la nag yenn saa yi nag nga sànni ma xeer waaye. moom man ñëpp ñëpp laay tooñ. <laughs> léegi bàyyi ko loolu sax xamee na léegi. très bien alors li waral ma ñëw fii tey da ma woo ay 10 heures. Mhm. vraiment ni ma congaan maa ngi nii jugaguma ci lal bi. Mhm. wax ko fu la neex Balla Gaye dafay daan. Mhm. lan nga gisoon ba wax loolu Mama Selbé man vraiment bi nga ma koy wax tiit naa de maa ngi ko bëggoon dugal istaf sax que jinne yeeg yu demee noonu xawoon naa am tiitaange quand même bi nga ma koy wax. xam nga neewoon naa leen bés bu ngeen ma yëngalee ba ma duggaat ci làmb di ngeen am problème euh, Selbé li muy def daf ko man vraiment euh, te lu ma gisul du ma ko wax yàlla nag mooy dogal. Mhm. toujours damay jiital yàlla. Euh, combat Balla gay euh, Tapha Tine préparé naa ko dimanche bale laa commencé sarax bi ma defaloon Balla Gaye Yékini moom laa defal Tapha Tine gay sarax boobu mu ñëwaat moom la ma sama jinne yi woon ma defaat ko yaa une semaine ñu ngi sama nekk jëlaguma ko euh, maanaam hmm. démb dama toog une du matin tëdd suma fit bi naan tëf-tëf ma ne gaa yaa ngi sama kaw wala ñu ngi may tudd daal di jóg mu jógee dugg sama du sangu ba set sangu set jàpp julli def sama naafila toog ba cinq heures du matin mhm. xam nga heure yooyu gars yi dañuy bàyyi ci laa tëdd rekk gis Balla Gaye teg fi planche bu mag di dox te mbër nee naa leen boo gisee mu yore kuddu dëgg la gis nga ñaari round yi ma waxoon premier round deuxième round bay baax deuxième round bi ci la daan euh, euh, kii bi mm, te wax naa ko ko moom en face euh, Balla Gaye nag xam nga dama koo jig man dama koo jig yàlla daf ma booleeg Balla gëjoon naa fa ca bombari Bombardier gëjoon naa koo gis jaxarañ ca mhm. Bombardier mhm. ah alhamdulilahi rabbil alamin lu ma gis la rek tey woonaa buri ne ko ndékki nga bi ma la wooyee ba pare dama ko buri bàcci li ma ne ko ndékki nga mu ne ma tuuti rek ma ne ko demal nga ndékki ba suur nga naan ba màndi nga dem jël say bool nga tëgg jubile kon waxoon nga ko buri barakati laa ilaha illa allahu bi ma la wooyee ba pare ne la congaan Balla Gaye day am ndam te xam nga newoon naa leen ñaar laa gis benn première bi première signature bi dama gis Balla toog ci géew bi jël loxo bi teg ko fii léegi deuxième signature bi ci laa gis flash sama jinne yi won ma Balla gee sol cap mu nekk victoire nee naa leen victoire la cap victoire la far yàlla defal ko nag victoire bu rëy bi nag maanaam sunu borom jox ko planche bu mag mu gàdd ko ci mbaggu ndeyjoor bi moo tax ma woo la ne la Balla day am ndam. Mm-hmm. Euh, démb sax euh, Dakar live wax naa leen Balla day am ndam te newoon naa leen deux deux deux lay doon première bi. du baax deuxième bi mooy. baax deuxième round bi mooy baax deuxième round bi lay moom lay baax. lu mu yàlla won la rek. d' accord mhm. très bien mais boo ñu doon jàngal jàngatal combat bi tey maman ñu bari am nañu vraiment mbetteel ci kii di tafaatin xëy na jàppoon nañu ni même bu fekkee dafay daanu tamit dina def action dina nekk ku active ci combat bi xeex ak yooyu dina am mais dañ gis ni dafa lâché wu complètement <laughs> maanaam dafa mel ni Balla moo diriger lépp. du def loolu mystique la wala nan lan lan nga ñu ciy leeral. tafaatin du def dara xam nga faaw mbëri nite. nee naa leen ñoom ñaar ñaari mbëri signature contrat ku ci dépassé nit rek dama lay daan. ku ci dépassé nit ku ci dépassé nit dama lay daan. Tafaatine moo débordé bu yi paasee dinañ def émission ma wax tafaatin li mu war a sol buy ñëw làmb pour mu jëm kaw am na lu mu war a sol pour ñëw làmb mais tey da nga ñëw pour uniquement wax man victoire bi ma la woo ci suba. Mhm. ak la ma waxoon ne ci deuxième round bi moo tax nga ñëw lu ma yàlla may la rek. d'accord Selbé dafa am xam-xam vraiment xam-xam du juróom-ñaari grand boobu du juróom-ñaari tuba yi du juróom-ñaari dara xam-xam dafa naturel ci doomu aadama lay nekk yàlla ci yàpp ak deret la. mais du ay juróom-ñaari garaam bu bu juróom-ñaari yore ay kaan wax loo xam ne du dëgg. d'accord non non man je suis né naturel et je aussi naturel euh, xam-xam jarul loolu yëpp. d'accord uh-huh. boo nee ku dem ci signature contrat tudd nit dama lay daan kon combat bi da nga jàpp ni victoire bi sa loxo la nekkoon Maman Selbé waaw indi nañ ma victoire bi yaa yaa trois jours kii bu am jamaa euh, affaire bu gudd la toll na ni caméra bi newoon naa leen bu ngeen di xool nee naa leen am naa ndam ndam li ñëw na vérifié waa leen vidéo bi àdduna mooy seetaan Sénégal Buzz nee naa leen am naa ndam li ñëw na ñaari ndam la ma yàlla jox d'accord ñaari fois mm-hmm. <laughs> d' accord kon daal jàpp nga ni combat bi bu dul pour cent tamit mystique bokk na ci li dimbali Balla ci komba bi. waaw maanaam euh, du mystique de mystique fan. ah maman Selbé kii maman maman Selbé dafa xam nga xam nga tey jii euh, xool leen ci xam nga am na yoo xam ne man bëgguma ko man duma bàyyi yàlla naan damay dem ci ay mystique Balla Gaye bu dóorut bu jëluloon loxoom dóor tafaatin ba tafaatin nàcc Balla Gaye bu jëluloon loxoom euh, plaqué tafaatin mu daanu bu toogoon rek croiser la bara xool tafaat ni rek mu daanu ñu ne mystique la mais da kaa dóor daan ko yéen tamit xoolaat leen li ngeen di wax est-ce que tafaatin sëriñam yi ko yi ko ngemb néewuñu ko dañu daan am na benn sëriñ bëgguma wax turam mbàkke mbàkke la woona ma ne ma ñaanalal tafaatin mu daan Balla Gaye parce que ñoo ñaanal Eumeu Sène te xam naa ne boo demee sax du dëgg ñaanalu Eumeu Sène c'est que dañuy dañuy laxasu ci ay nit rek man bëgguma loolu man bëgguma kuy xeex nit te bàll dañ koo xeex Balla dañ koo yàgg xeex ma toog ki sama coin di xool waxtu wi nag jot na l'heure a sonné du ñu ngi dund mhm. nañ dund ànd ak wér ñu seet am na loo xam ne kenn du ko def gis nga tey ngembawul këram mhm. am na lu tax ngémbawul këram. mais maman par contre boo ne Balla dañ ko xeex ñu bari jàpp ni ku Balla di bëreel sax mbër boobu la. ñu xeex jàpp yàgg na lii nii li ma fa gis yàgg na. lan nga fa gis. du tafaatin jëf ju yàgg. waaye incha allahu rabbi lépp lépp dina dañ man mbër yëpp samay doom lañu mais bëgguma ñuy xeex doomu aadama gis nga Balla Gaye buñ ko deful loolu liñ ko def mbër du ko daan. Euh, incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla lépp dina dañ. su ma gisoon keneen tamit ñu def ko ma Sène wala keneen ak keneen tam dama koy wax parce que man fii laay toog dugguma kër mbër maanaam lekkuma fa naanuma fa mais dafa am loo xam ne jaaduwul nga di ko def doomu jàmbur bu yore ndeyam yore ay rakkam yore soxnaam Balla gay est que xam nga Balla Gaye amul doom bu nekk fii doomam yëpp yóbbu na leen daara muy jigéen ak góor tout à fait kon kooko talul mhm. talul dara mhm. mais am na loo xam ne kenn du ko def nit quand même d'accord très bien yaa ngi wax léegi nii dafa am yoo xam ne doo ko mën a supporter mais moi ba tey ci combat bi Tapha dañ ko gis mu bett ñu bari deful benn action nee nañu sax dafa mel ni premier combat am ak Balla Gaye rek la waat maanaam toog rek bàyyee boppam Balla mu dóor ko ba daan ko loolu lan nga jàpp ni moo ko waral. <laughs> mystique bi la xam naa. <laughs> dara wala daf ko ñemee woon. déedéet du lool de du lool de. xam nga Selbé Ndom sax day day def ay ñaanam. Mhm. man su may wax làmb man sax damay def samay sarax man damay def samay ñaan démb damaa fanaan ni toog man damay bëgg lu ma wax mu am nee naa leen man séeréer laa te séeréer laa te séeréer la kenn gënumaa nekk séeréer waxoon naa leen yàlla du séeréer yàlla du soose yàlla du njaago yàlla du mànkaañ parce que laa ilaha illallahu moo fi ne allahu akbar moo fi ne am na loo xam ne kenn du ko def nañ bàyyi ethnie yi ñuy jaxase man séeréer laa ab séeréer damaa woo ne ma tafaatin mu ngi fii sama portable tafaatin dina daan Balla Gaye dina ko dóor mu daanu mu toog sanq rek woona ma dina ko dóor te ko sëriñ la mm-hmm. dina ko dóor mu daanu mu toog wala wala mu mu daanoo wet ma ne ko dang may wax benn rek danga may wax benn mm-hmm. danga naan dina ko dóor mu daanu wala dina ko xàttar bi mu daanu mu ne ma waaw daal di wax ne ne am na leneen loo xam ne dama ko cee war a dimbale is nga man booy jéem a sot di ma woo bëgg a sotal sot doomu jàmbur man sama xol bi day mel ni day jam man duma ko nangu mhm. joxuma Balla Gaye sunguf man buri bàcc li ko ne ko kaay jël sunguf dafa nekk ci man mhm. nañu moytu di xeex nit d'accord say tegtal daal nga def li nga xam ne moom nga gis ci ay tegtal waaw d'accord lan ngay wax ci ñu bari ñu jàppoon ni combat am yu mujj yi nga xam ne bëri na ko moom Balla rawatina combat am ak Boy Niang ñu bari jàppoon nañu ni mbër la bu ñu yàq xëy na dafa nekk ci ay tolof tolof ak yu demee noonu combat bi combat bu ko dugalaat ci làmb ji la da nga gis ni Balla dafa defarwaat à 100 pour cent kon le retour de Balla bi ñu xamoon ci làmb mën nañ jàpp nañ dund rek nañ dund rek. Mm. may ŋàbb te man bëgguma ku ñuy xeex dañ koo xeexoon yàq tànk yi déggoo ma de. Balla li muy bari yëpp gisul Selbé Ndom ak bët loxoom bi tegawul ci loxo eh, Selbé Ndom ñaa dama ñéeme tungaan joomaay bu simple bii déggoo ma de bëgguma fëgg sama dënn yàlla moo ne laatam suufil addi maraxan xam nga ko mhm. kon ñun dañuy dal rek mhm. waaye incha allahu rabbi nañu yàlla may gudd fan ak wér Balla day ñëwaat d'accord parce que buntu këram googu ñu yàq victoire yaa nga ca buntu kër ga tege billaahi wallahi tallaahi adduna jarul loolu làmb fola rek làmb fola comme journalisme bii ngay mhm. def mhm. mën nga ko mhm. peut-être am na ñoo xam ne déranger nga leen parce que fu nekk ngay dem foo fëgg ñu ubbil la buntu noonu rek la demee mais euh, di ko félicité moom Balla di ko félicité bu baax. d'accord félicité wu ma ko sax buri laay félicité ma sœur d'amour. Mhm. Euh, maa ngi koy félicité bu baax a baax a baax a baax ndax sonn na ci combat bi. Mhm. vraiment mhm. te gis nga ni mu ñaawee tubaarikàlla. sonn ci def lu ne maa koy félicité. waaw di ko ñaanal ndam li yàlla bu mu fi gëj barakati laa ilaha illallah muhammadu rasulullah na ñoom Baye Ndiaye gaaw tëggalaat ko beneen lamb d'accord très bien Tapha Tine ñu bari ñu ngi njortu ni li daloon Yékini mbaa du ko far dal bi ko Balla daane défaite bi jàppoon ni man na am lu mu ko impacté ci carrière am comme Balla Gaye ko daan. non non non non non non Tapha Tine na ma fay ma wax ko li mu war a duggee ci làmb ji xam nga man. kon instant yi génn na ci làmb ji. Ah, ma fayee ma wax li mu war a gàccoo rek buy dugg ci làmb ji xam nga làmb moom da ngay daan rek ñu daan la. Mhm. waaye dafa am nu mu war a duggee ci làmb ji. am na défaite yoo xam ne day yàq mbër évidemment dafa am nu mu war a duggee ci làmb ji moom. te muy bàyyi yenn wax yi. comme yan wax. da cee tudd Yékini nee na Balla dafa daan Yékini moom dina ko duma dina ko daan te nee naa gis nga ñiy toog foofu ci signature contrat yi am na ñoo xam ne ñu ngi toog seen kër lu waay wax ñu ne la du dëgg waat ko ci laa yi illallah ne la dangay ngay kàcc waxu dëgg nañuy xool seeni parole bëri Yékini ak Balla Gaye paase na. Mhm. bu ko benn mbër tuddaat. lu yàlla dogal la am na ba pare yow damay bëreeg yow yow laay bëreel am na yenn wax yoo xam ne du ko ca wax. Mm-hmm. ku ci daanu yaa daan sa bopp. nañu mesure parole yi. respectante. Mm-hmm. d'accord. victoire bi. Mm-hmm. kenn jëlewu ko ci armeel yaa ngi dégg. kenn jëlewu ko fenn directement lañ ma ko indil su ma nekk. d'accord. xam nga bi ma lay woo demagoo la <laughs> absolument ma bi ma lay woo dama koo làmb yeewoo guma sax vraiment damaa xëy woo la ne la congaan nga ne sama yaayi bopp ma ne la maa ngi lay ziyaare nga ne ma delloo ziyaar mhm. ma ne la dina daan mhm, tout à fait nga ne ma ah yaay booy ma ne la ci kàttanu yàlla Balla dina daan waay nga ne waa baax vraiment ma woo guy gi mhm. people deux cent vingt et un quatre-vingt-quinze euh, ko Balla dina daan woo soxna sëram bi nekk Espagne ko bul Balla day daan. sëru Balla Gaye. bi nekk Espagne. Mhm. ci la ma ne buri buri di xam naa tiit na. ma ne ko xaaral ma woo ci laa woo ne ko ndékki nga mu ne ma noonu. d'accord tuuti ma ne ko demal. Mhm. nga lekk ba suur. d'accord naan ba mbaan mhm. jël sa bool tëgg jubilé. Balla daan na am na ndam. très bien. boobu ñoom tojaguñu glace. après laa xool vidéo yi ñu toj glace. Mm, gis ñu ngi toj glace. te yow xëy na bokk na ci tegtal yi nga yi nga ko bëggoon a dénk pour mu def ko. waaw ma dama ci dama ci dugal sama loxo ma nit dama ci am participation ndax ndam li man tam dama koy soxla ndax damay liggéey. d'accord. may waxee ci Balla. waaw loolu laay waxee ci keneen ak keneen. ndax man damay liggéey. absolument làmb dama bokk ci làmb. di gërëm aussi. Mm-hmm. Aziz di gërëm Baye Ndiaye mi ko tëgg. Mm-hmm. vraiment limaan làmb nekk seen ginnaaw yëpp. maa ngi leen di féliciter làmb ji réussir na neex na mhm. waaw kër euh, sama papa bi ñu bi ñu bi Balla waree mm. neex na ma aale mi jigéen njaay sama papa yal ko yàlla xare ci àjjana yi gën a kawe mère Khoudia Diop nekk fa tamit sama yaay bég naa bi ma ko rek sama ah, xel dafa dal sa xel dafa dal fi mu mm. ngeen daal fi mu ngeen xel na fa sama xel dal na waaw très bien maman Selbé Ndom moom la seen bés di question bi judduwaat tey moo dina Tapha Tine mbër la boo xam ni ñëpp xam nañ ko ci xeex xeexul tey c'est parce que dañ jàppaat loxo yi loolu moom xanaa doo ko weddi. xam nga ma ne woon naa man mii Selbé Ndom rek bu may bëree Tafatine damay jàpp loxo yi Tafatine boo jàppul loxo yi du baax xanaa gisoon ni mu defoon. ama seen évidemment déedéet waxuma ama seen sax. Mhm. ni mu defoon mhm. Tafatine. ni mu defoon Bombardier mhm, waaye surtout ak ak ni mu def Elton dóor ko ba kanam gi kii bi mu waxee ne eh, Balla Gaye ne dafa daan Yékini Balla Gaye nee na ko ni nga defoon Elton moo ma naqare woon moo tax ma jël sa combat waaw kii la rek nañu ndànk rek. d'accord te ñuy bañ a wax seen signature yi loo xam ne day bonal xolu jaami yàlla yi toog ci seen biir kër te demuñ ci làmb ji duñ dem làmb man Selbé Ndom duma dem làmb mënumaa dem làmb munoon naa def samay kagul di dugg ci làmb ci mm-hmm. te mbër mu ma ci àndal doo daanu xam-xam du du ay sungu faki reen mm-hmm. être naturel c'est mieux que tout. tout à fait ñoo dem vaar te ñaata maa mën laa wax ñoo dem vaar. Hmm. d' accord très bien lu tubaab di wax euh, prémédité moom nga def ci combat bi teel nga wax ne vraiment kii di Balla Gaye dafay daan yàlla def aussi mu daan xanaa kon mën nañu wax ne victoire bi sa la nekkoon Maman Selbé yaa daan. déggoo la wax indil leen ma victoire trois jours avant. une semaine. Mhm. dimanche bële laa def sarax ba ma defoon ca Yékini ak Balla Gaye mi ngi sama néeg bu la neexee naa la ubbil nga xool ko. am na fa une semaine dimanche bële laa ko def. Mhm. dimanche bële laa ko def dimanche tey une semaine mi ngi sama nekk maa ngi tëdd ak moom di yeewu ak moom te loolu sax yi mu ko defee yàlla may ma ndam. parce que combat bi foofu la tolloon. Mhm. combat de choc la woon boo xam ne maanaam yow boo ci waxee rek fagarul sa bopp. démb nee naa la damaa tëdd une di du matin sama fit wi tëf tëf yi ma xam ne ñu ngi may tudd rek ma jóg te la ma def xam naa ko. d'accord très bien. ànd na ak yàlla. ba 5 heures du matin. d' accord en une minute bu ma la doon laaj tey kàddu yoo xam ne danga nga koy yëkkati jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo bootoon ki nga xam ne mooy Tapha lu jëm ci lu koy dimbali pour làmb yi nga xam ne moom la moom la dégmal lan lay doon. Mhm. ba ñëwaat rek ba ba nga ñëwaat rek ma wax tafaatin Tine ni mu war a solo. ni solo. waaw boo fu ñëwaatee. Mhm. incha allahu bi dinaa wax tafaatin Tine bu ñëwaat ci làmb am na lu mu war a làmboo. am na couleur boo xam ne moom la war a làmboo d'accord Tapha Tine war naa jóg ci kaw mais li mu li mu war a indi ci làmb lu mu war a euh, teg ci kawam indiwu ko loolu am na bu yàgg ni kon heure bi Tapha Tine jóg na ci kaw incha allah boo ñëwaatee dinaa ko may àddi. d' accord d' accord tey taxawaay bi nga am ci combat bi ah. def ci ay sacrifice sonn ci woo ma woo soxna woo ñu baree bari ni leen Balla dafay am ndam. man mhm. naa wax ni c' est pas gratuit lan ngay xaar ci Balla ma Selbé. xanaa nag war na am reconnaissance un peu quand même cette fois ci. si si si si Balla am na reconnaissance parce que. sa xuloo waale. Euh, non xuloo maak ak Balla de. dama faa dem recevoir ma ma mer toog sama kër. ok waaw dama dem recevoir ma. xam euh. naa dafa déggoon ay wax rek. peut être mm, xaw ma. Mm, mm, ndax euh, wax naa ak yaayam maanaam xanaa xamoo am na benn xale bu góor xaw ma ci numéro 24 la dafa ma dëgg la ay saagay ndey yu métti ndax Balla gay nee na maa liggéey Balla gay man maa tax boo euh, mbër Bombardier daan Balla Gaye maa jaay Balla Gaye te Bombardier su ma boo ma joxe ay milliards xaw ma kër Bombardier man Lamine Samba ma mos a yóbbu Mbuur te ci benn hôtel la. Mhm. Bombardier yaakaar naa Gris Bordeaux la doon bëreel xaw ma. Lamine Samba moo ma jëlee sama kër yóbbu ma mais moom nee na barke Seydina Mouhamed yóbbu ma. te man mm-hmm. aw ma jotu taxaw. billahi wallahi tallahi moo gën a for Seydina Mouhamed ndax yàlla moo tànn Seydina Mouhamed. Mm-hmm. def ko xaatimin nabiyyin mm-hmm. wa imaamil mursalin boobu la mais tey. bombar jéy musumaa jënd man kenn musuma munumaa jënd ma naan damay xeex sama moroom doomu aadama sama moromu jullit kenn du ma jënd loolu amul. yaay Balla Gaye woo na ma. Mhm. a ko loolu bu ko bu ko jàpp amul benn problème. d'accord Balla suma doom la ndax Mouhamed bi ma koy téye ak Mamadou doog a juddu may toog néegu yaay Balla Gaye mhm. loolu yàgg na ba tey Mouhamed tool nii. kon alhamdulilah rabbi alamin d'accord man taxu maa jóg man du ma xeex nit kon xanaa accusation yu grave yooyu tax na ci li bokk na ci li gën a tax tey nga xar sa tànk tubéy comme ni ñu koy waxee ba combat bi suñu borom may ndam Balla dafa gëj am ndam. Mhm. dafa gëj am ndam trop te yàlla may na ko kombaam du ndaw komba bi day rëy lool moom kombaam du am komba bu ndaw yàlla may na ko nit ñoo xam ne barakallahu kon maanaam dafa war di euh, Balla Gaye dafa war a dellusiwaat ci làmb ji. Mhm. ndax euh, luy yóbbu làmb kanam la. man man du may seetaan làmb sax ndax bu làmb paasee moom laay doog ko seetaan bëre bi doo ko xool. ni mu mhm. demee mais man heure làmb. saa yu ma waxee man damay def samay saraxi bopp saa yu ma waxee maa ngi jàkkaarloog sama borom. d'accord pour maanaam mën a am man ndam. très bien parce que fii <laughs> eh, vaar bi vaar bi day bari lool lool lool <laughs> te sa classe gi <laughs> duñ ma may dara moo tax. c'est clair c'est clair mm-hmm. très bien avant de finir maman Sall fi may jeexalee am na ay kaddu yoo bëgg a yëkkati jëmale ko ci ki nga xam ne mooy njiitum réew mi président mm-hmm. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mm-hmm. yan kàddu la. son excellence maa ngi koy ziyaare. Euh, bi ma gisee victoire Balla bi rek yàlla daf ma ko woon mu taxaw. Euh, maanaam boppam bi nit jël lu mel ni saabu raxas ko ci bàyyi ko ay minute bopp bi laa gis mu xëbal lu mel ni saabu après maa ngi ko gis di ko di ko joxoñ nii naan ko nee naa la del sol mbaxane loolu depuis au début bi mu waree falu laa ko gis ci asamaan si billaahi wallaahi tallaahi man Selbé Ndom ñaanuma audience pour dem ca pale ba ñaanuma ko dërëm barakati laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mhm. ndax man coggu yàlla la mhm. man duma coggu nit noo mënti mel loo mënti am nga nekk multimilliardaire bu doon loolu ma dem di raxasal ilmaan lam tànkam yi kat mu yëkkati ci million ngi di ma may wala mu jëndal ma oto mais yàlla moo def ci man loo xam ne vraiment ba ñu ma dem ne congaan may ma dara yow mi wax nga ma ko mhm. ne ma show show bis bi li tax duñ la may da nga dul dem fenn mu danga loolu ku ma bëgg may maanaam ni ni Wally Seck def ngay def Bassirou Diomaye Diakhar fay monsieur le président del sol mbaxane boo bëggee fu nga bëgg Sénégal dem fa wallahi lazim del sol mbaxane man maa la ko wax bopp neen baaxul ci président mm-hmm. Mm-hmm. musu leen dégg ma ne Macky Sall na sol mbaxane wala bum sol mbaxane mais moom ayam gii su bëggee mu neex man sel benn bu ma xamul xam na ma sax mm-hmm. del sol mbaxane d' accord son de sol mbaxane très bien lillahi wali rasuli am na solo mama Selbé mama Selbé Ndom moom la seen bés di am ak jotaay ngir jeexal nag ngir ak fàttali aussi mënul ñàkk ndax léeg-léeg dina am ci askan wi ñoo xam ni ñu ngi ci réew mi wala sax nekk bitim réew danañu yittewoo jokkoo ak yow ngir ak fàttali yan numéro lañ la mën a jotee waaw nañu bàyyi xel ndax am na ay saay-saay yoo xam ne dañuy woo waa bitim réew yi moo tax saa yu ma defee émission seen bés mhm. damay bëgg ñu afficher samay numéro ndax mhm. man am naa ngor goo xam ne du ma woo kenn ne ko kaay seetal la mhm. waaye seetal la tey teg sa tànk ci suufu yàlla si wooteel ci 77. 744 39 18 77 737 67 46. numéro boo ci wootee man maay wuyu wuyu directement amul intermédiaire. Mm-hmm. noo mun ci toll. dinaa la wax ni nga toll dinaa la wax li nga war a def. te buñ lay defal sarax da nga koy gis sa mm-hmm. waaw yàgg naa ci musuma ci am benn jafe-jafe. Mm-hmm. su ma fanaanoo xaalis jàmbur bu nit dugaloon léegi léegi. damay bàyyi li may def dem seetal la bagage yaa ngi nii. Mhm. ngeen moytu nag ñi leen di nax. sëriñ si leen di nax di jël ay béjjën encore toujours dama koy wax. Mhm. di jël ay béjjën ak i laar di yëngal naan béjjën yi ñooy wax béjjënu nag bu dee nan lay waxee. congaan béjjënu nag bu dee. ñu rey ko ba dagg béjjën ba nga jël béjjën ba sox ci say bagage jël sa morso bu xonq def ci jël say petaaw ñaw ci. Mhm. yëngal naan day day wax lan lay wax. téeméeri jinne benn jinne rek doomu aadama attanu ko jinne du dëkk nit day dem di ñëw nañ ci bàyyi xel flash buñ la ko wanee mën nañ la woon congaan flash bu la neexee nga ne congaan ah jinne yi woon nañ ma la nàngam mm-hmm. li nga wax congaan mm-hmm. koy gis mm-hmm. ñu bàyyi xel kàcc yi Moussa Ndey Anta loolu yëpp du dëgg gisoo fi ñu bind fi dara nañu def naturel